téléspectateurs yi ne fii ak màggal daaw bi ñu koy def dañ ci amoon ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak ah. wér ren it bi ñu koy def de hmm. doxaat nañu ba yëggaat ci moom hmm. yëgal ko sàkku ci moom ndigal ba am ko hmm. dem nañ it ànd ak mboolem taskatu xibaar defe naa yi nga xam ne ay murit lañ tey faral di intervenir ci yoon wi ngir ñu xool nu ñuy sàkkoo ab kuréel ba mu tuddee leen tur sortu nabay yi maa ngi leen di nuyuwaale ñoom ñëpp ñu ñuy seetaan Baye mbay Guèye Syll sax mu nga woon ca ca mboole ca jotaay boobu dañuy xool élément boobu te bis boobu dem na defe naa ca ëllëg sa aljuma ba dañ doon defal sarax euh, sëñ Cheikh Jëmb Fall mhm. fekk nañ fa sëñ Mamor Ndaw mii ca Mbàkke mhm. ñu xool image yi te dellu si ci plateau bi barke maam Cheikh Ibra laa ilaaha illallah naaw yi moo tax muy gis fii nag ne nii borom bi daal ne ko ni nga koy gis nii nag essence la def essence essence la def ba def ba fees képp illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah Cheikh Ibrahima

Seydina Muhammad Seydina Muhammad Seydina Muhammad yaa Rasuulallah yaa Habiiballah yaa Nabiyallah yaa Khaliilallah sallallahu alayhi wa sallam تعالى عليه وسلم إمام لمفال مام لمفال مام لمفال لي لبيو شيء بربال لي لبيو نمبر سير ملك Cheikh Ibra Fall lii la xar nga baal xottib leen waal Cheikh Ibra Fall lii la dimbali ñooy waal yërëm ñooy waal ci kalimatu laa ilaaha illallaah ci baatu laa ilaaha illallaah ci kalimatu laa ilaaha Cheikh borom gëneel la Cheikh la xaadimu rasulallah jiju gëneel la Sëriñ Bamba dëkku gëneel la Cheikh Ibra Faal moo yoon bi fa ñëwaat ci bu ko réeri xaw ci ceyi gugadere hawma fono jambal jawmalo borom ganel cheikh madou bamba borom ganel bamba dëkku ganel la cheikh ibrahima bi fa ñëw gugarere xawma fu mu jëm waal cey gugarere xawma fu mu jëm waal cey gugarere xawma fu mu jëm waal jërëjëf Sëriñ Tuubaa Bamba amul morom sëñ Bamba jërëjëfi sëñ Bamba moo ñàkk ki ñaan mooy li woo yaram ma am faal maam lambu faal maam lambu faal lii lebe nimbalaa waaw kay dinañ mhm. ci gën a dellu siwaat ci ki nga xam ne moom moo di euh, sëñ Amdi Modou Mbenda Fall ah, di xalif général de Baye Fall li nga xam ne mooy mission bi mu fas yéene doxal mhm. li mu donne ci sëñ Cheikh Jëmb Fall mi ñu mhm. jooyta noppeegunu waaye balaa boobu li ñu waxoon ci njëlbeen moom mooy sëriñ Touba am na lu tubaab yi bind ci moom am na lu ay magi murit ñu fekke ñu yër mbindam Serigne Touba moom ci li mu jëflanteeg tubaab yi. Mhm. waaye am na beneen boo xam ne mooy tubaab yi dañ ko dund ak Serigne bi te binduñu ko officiellement. Mhm. officieusement lañ ko bind maanaam. Mhm. binduñu ko ñëpp dégg. Baye Mbaye Guèye silmi ci xarañteefam ak sabab lu xam-xamam ñëw fas yéene ñu baaxee yenn ci yooyu ca do pourquoi ñu war a xam loolu balaa ñuy dugg ci waxtaan. bi c'est très important Pape Sidi ndax. Euh, tubaab yi boo dundee ak ñoom di nga xam lenn ci seeni jikko bokk na ci euh, bu ñu nekkee ci lu mel ni administration dañuy def ay rapport waaye dafa am loo xam ne souvent dañ koy am mooy agenda loo xam ne ñoom dañ koy fanaanoo dañ koy dëkke di bind li ñuy dund au quotidien li ñu yendoo ba jant bi so dañ koy bind mm-hmm. souvent nag dañuy bind ñu ñuy jëflanteel personnage yi leen di marqué te Serigne tubaa dafa nekk nit ku yéeme koo xam ne ku ko gis dina la yéem ku jëflanteeg moom dina la yéem fawu nag boo ko mënta bind ci un rapport officiel nga bind ko bind li nekk sa xol wala sa xel denc ko foo xam ne fu beggandi lay doon ndax ci jaar-jaar yi ak gën a am solo ci nit ñi jaar ci administration ci yooyu jamono gis nañ ne ku ci jaar ko ne jëflanteeg sëñ Touba rek marqué na la nu la beneen affaire marqué wul ci Afrique. Mhm. moo tax bu ñu demee ba loolu tàbbi ci sunuy loxo maanaam mu mel ni c'est un trésor boo xam ne murid yi nañ ko découvrir les annales secrètes du colon. murid yi waaye sénégalais yi ak africains yi ñëpp ko war a xam nañ ko xam. Mhm. moo tax mhm. ñeent fukki at ak lu topp ñett mbaa ñeent mën nañ ko limee noonu yaa ngi topp fi Serigne Touba jaaroon ngir xam. lan la fa jot a dund Baye Mbaye Guèye Syll tey suñu première question mooy lu àndut ak xërteef parce que daaw am na ci ay mbir yu bëri yu yenn waaraatekat yi doon wax pour neexal baas gindi nga ñu ci. Mhm. ren dañoo bëgg delloo buum ca mboy mboy ga ginnaaw bi ñu amee ndigal. Mhm. ci nga wax ñu lan la ban nit la tubaab yi doon jëflanteel bi ñuy jëflanteeg sëñ Tuubaa selon ñoom. Mhm. est-ce que am nañ fu ñu waxee ñoom décrire nañ sëñ Tuubaa tubaab yi secrètement loo xam ne bokkul est-ce